sangu sangu yi muy sayyidu rasul sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi nuyu mboolo doomu aadama yépp fu mu nekk moo xam fii la ci réew mi ak bitim réew képp koo xamante ni ni yaa ngi seetaan moo di télévision bu ñuy wax ne Hann TV ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla di la ndokkeel tamit ci weer wi nga xamante ni nii weer wu tedd la weer wu teru mu di weeru koor ñu amal jotaay boo xam ni danañ ko def jiitu nit nit ñi di ndogu incha allah ñu amal ko ànd ko en TV incha allahu am ci yenn fàttali yu ñuy fàttali mun nañ ko tuddee sax jotaayu koor incha allahu rabbi di tamit euh, profito waale di ñaan ci weer wu tedd wi weer wu barkel euh, suñu borom subhanahu wa taala la nga xamante ni nii mu di feebar bi nekk ci jamono bi mu di mbas mi mu tudd euh, Covid 19 ñu ngi ñaan suñu borom mu xooleel ñu bëtt yormande ci weer wi yàlla na yàlla fayal ñu ko yàlla yàlla yemale ko fii yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wàccee ci ñun yërmandem euh, ñuy fàttali bu baax xam na ne weer wu tedd ñëw na weer woo xam ni nag dafa ñëw ànd ak ay mbégte yu baaree bari bari bari ànd ak ay kado yu baari mu di weeru koor mu di loo xam ni dinañ ci waxtaan wax ci wàll attee koor li ñu tuddee axkaamu siyaam waaye tamit dinañ waxtaan ci masaalihuhu wa ahdaafuhu masaalihuhu moom mooy njariñ ya nga xam ni koor am na ko ak maqasid yi maanaam jubluwaay yi wala li ñu tuddee mooy objectifu koor lan lay def ci doomu aadama waaye tamit dinañ ci wax ci lu nga xam ni mooy masaalihuhu at tashriiya mooy njariñ ya xamante ni islam moo la ko teg mais soo ko defee ba noppi ban njariñ nga ci am kooku tamit danañ ci wax ci tomb yooyu dinañ waxtaan tamit ci masalihuhu at tarbawiya jariñu koor la nga xamante ni nii ci wàllu éducation bi koor di def ci doomu aadama danañ ci waxtaan waaye tamit danañ ci waxtaan masalihuhu an nafsiya jariñu koor la nga xamante ni nii ci wàllu xel doomu aadama la wàllu psychologique lañ koy wax ci wàllu googu danañ ci waxtaan koor naka lay def noonu dinañ ci waxtaan tamit masalihuhu ijtimaiya maanaam jariñu koor ci mboolem doomu aadama maanaam ci social danañ ci waxtaan waaye tamit noonu la masalihuhu assixiya koor naka njëriñ ya nga xamante ni nii amal na ko doomu aadama ci wàllu wérgu yaramam loolu tamit dinañ ko ci waxtaan su fekkee ne dugg nañu ci waxtaan ahkaamu siyaam am na ay tomb yuñ ci waroon def yu bari waaye tomb yi ci jiitu moo di aaya alquran ñu xam ne ne koor ramadan farata boo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo ko faratal ci kaw doomu aadama kon ñu xam ne képp kuy jullit wooru weeru koor na xam ne ne kat weer wi farata la gis suñu borom subhaanahu wa taala faratal doomu aadama ci kaw doomu aadama alquran di ñu fàttali yàlla ne wax ne ci téeram bu tedd gi yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ayyaaman maadudat faman kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyaamin uxar yuridu allahu bikum alyusra wala yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون sama borom yàlla di wax ne yéen ña nga xam ni yéen a gëm yàlla yàlla nee na bind naa ci yéen faratal naa ci seen kaw li nga xamante ni moo di weeru koor na ngeen ko woor comme ni ma ko farataalee woon ña nga xam ni ñooy ñi jiitu yeneen xeet yu fi musoon a jaar xeet wu nekk rek yàlla wàcce woon na ci moom koor muy woor kon nag ñun doomu aadama yi ya nga xam ne ñooy xeetu yont yàlla muhammad suñ suñu borom subhaanahu wa taala di daal di dalal suñuy xel xam na ni kat koor nekkut la nga xam ni lu diis la ba yàgg sax aaya bi dem ba yàgg yàlla ne ayyaaman maadudaat koor kat ay bés yoo xam ni yu ñuy lim la su fekkee ne woor nañu bés bii tey mu mu leer na leen li la deseeti bareetul ñaar fukki fan ak juróom ñett mbaa ñaar fukki fan ak juróom ñeent kon mbir la ba nga xam ni ay lim la kon nag dañu war a profité occasion ci mbégte yooyu ak kado yooyu koor gi indil ñu ñu fexe xam naka lañ koy garder ak naka lañ koy jëriñooyee euh, ñu xam ne koor tamit nga bàyyi ci xel li tax male na yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moo ko farataal bala ngaa ne bokk ak ña nga xam ni da ngay gis weer rek daal di woor ah, ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di waxee bari na koo xam ni mi ngi woor suba ba ngoon lekkut naanut waaye amu ca lu dul xiif ak mar kon da war a taxaw ñaari nit a ngi nii kii ko xam la kii su taxawee dana xam koor attey koor ngëneel ya nga xam ni ñi ngi ca ak ka nga xam ni moom gis na nit ñi di woor rek muy woor kon ñu xam ne koor nekkul benn aada bu nit ñi di jëf wala benn euh, toppandoo déedéet koor dafa nekk loo xam ne farata la boo xam ne suñu borom moo ñu ko faratal ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne koor dafa bokk ci keno maanaam ci ponk yi islaam mu ne buniyal islaamu ala xamsin mu ne shahadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulallah wa anna muhammadan rasulallah wa iqaami wa sawmi ramadan mu tudd fa koor kon juróomi ponk yi gannaaw ba nga xamee ne suñu borom kat yàlla kese yàlla te moom mooy ki yónni yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ngay taxawal sa waxtu julli yi juróom su fekkee ne am na loo am nga génnee ci azaka di ci joxe gannaaw gi su fekkee ne mën nga aji makka te attan ko jëf ko gannaaw gi nag nga xam ne tamit weeru koor dafa bokk ci mbir yooyu kon weeru koor ngoog mbokk yi ñu xam ne Euh, weer la woo xam ne chahru tawba chahru almaghfira chahru almuwaasa chahru alsabr chahru rahma weer la woo xam ne weeru tuub la doomu aadama yi weer wi dafa mel ni dafa ñëw fekk nit ñi ñoo ngi feesoon dekk dekk ak ay bakkaar nga xam ne ne weer wi dafay ñëw daa di lakk suñuy bakkaar yépp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxe waxee nee weer wi kat képp koo xam ne ramadan ramadanu ila ramadana kafaratun lima baynahunna ida jtunibat ilkabair yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diggante koor ak koor nee na kat suñu borom subhanahu wa taala defaral na la fa la nga xam ni koor gi kafaratun lima baynahunna li fa doxoon ci diggante bi su fekkee ne ay bakkaaral suñu borom dana la ko fas dana la ko faxasal ba mu set wicc su fekkee ne moytu nga bakkaar ya nga xam ni mooy yu màgg ya nga xam ni yooyu moom tuub rek a ci war weeru koor dafa ñëw ngir nit ñi tuub ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñoo xamal ne ka nga xam ni dafa woor suba ba ngoon malaaka yi ñu ngi lay jëggalul sa borom subhaanahu wa taala ba keroog ngay dog kon ñu xam ne ne loolu noonu shahrun weer la woo xam ni weeru barke la weer la woo xam ni weeru jàppalante la weer la woo xamante ne weeru muñ la tomb yooyu yëpp danañ ci ñëw ñu xamaale tamit weeru koor dafa nekk shahrun tuftaxu fiihi abwaabu aljanna wa tuglaqu fiihi abwaabu niiraan aw abwaabu aljahim wa tusaffadu fiihi maradatu shayatin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne ne comme weer wi dañuy ubbi bépp bunti àjjana bépp day ubbeeku maanaam binti bunti àjjana yi su fekkee ne ubbeeku na rek dangay gis ne yërmande yàlla bi day wàcc te am nañu yaakaar tiitaange ak problème yi ñu nekkal tey mu di feebar bi am nañu yaakaar suñu sellalee suñuy xol jaamu yàlla ci weer wi ñaan suñu borom suñu borom dana ñu wàcceel yërmande boo xam ni benn bés dara dootul des ci kaw jamono lépp dana daal di dem la nga xamante ni nii lu taxoon la ci feebar bi incha allah Euh, ñu xam ne tuftaxu fiihi abwaabul euh, janna waaye tamit wa tuxlaqu fiihi abwaabu niiraan ci weeru koor dañuy daal di tëj mboolem bunti safara suñu borom da koy daal di tëj loolu ci weeru koor rek lay am waaye tamit ñu xam ne cheytaan ba nga xam ni moo doon dox nit diggante nit ki ci jëf lu baax cheytaane boobu suñu borom maanaam ña nga xam ne dañu fertellu fertellu ci cheytaan ya nga xam ni ñu bari doole lañ bari pouvoir ñoo ñu suñu borom da leen di da leen di daal di jéng ba weeru koor gi jeex moo tax ne sax da gis képp koo xamante ni daan na def sax loo xamante ni nii safaan la dangay gis ne day daal di sawar ngir bëgg jëf jëf ju baax dangay dégg ne mun a ah, man de damay arrêté jëf jëf ji ndax koor gi ñëw na kon nag kon ñu xam ne koor kooru yërmande la koor li mu lamboo dafa daal di bari ñu xam ne tamit ci weeru koor annahu shahrul itqi min an naar weeru koor dafa nekk weer woo xam ni dafa ñëw pour gorel doomu aadama ci safara dafa ñëw pour gorel doomu aadama ci safara moo tax sax yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu naan yaa baagiya alxayri aqbil wa yaa baagiya alcharri adbir wa lillahi wataqaaun min annaar yow nga xam ni wala yéen ña nga xam ni jëfkatu lu baax ñi jëfkatu lu baax ña nga xam ni ay jëfkatu lu baax lañu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ñëw leen gaaw leen weer wi nag yéen seen weer ñëw na waaye ña nga xam ne dañ doon jëf lu bon mu ne gaaw leen yéen tamit ngeen daal di dummoo yu bàyyi lu bon daal di jëm ci lu baax ndax weer wu tedd weer wu barkeel daal di nay egsi kon ñu xam ne kon weer wi weer la woo xam ne suñu borom subhanahu wa taala dafay ubbi mboolem xéewal ak mboolem yiw kon ña nga xam ni tamit moo tax mu ne uh, weeru utaqaun itqun min an naar yàlla danaa walillahi utaqaum min naar yàlla kat amal na jaam ya nga xam ni dañoo nekkoon ay nitu safara suñu borom da leen di libéré ñooñu dañuy daal di ñu dindi seen i tur ne ñii kat léegi nekkatuñu nitu safara ay nitu àjjana lañ ñoo ngi ñaan képp ku ci nekkoon yàlla na yàlla teggil la loolu yàlla def la nga doon nitu àjjana beneen bi ñu xam ne weeru koor annaha shahrun tudaafu fihi al ujur weer la woo xam ni tudaacafu fiihi al ujur dañ siy daal di fulul doomu aadama fay lépp lu mu jëf benn jëf suñu borom da ko koy fulul suñu borom da ko koy fay waaye tamit annahu kaffaaratun wa magfira weeru koor dafa dikk pour daal di lay faxasal say bàkkaar waaye tamit suñu borom dalay laa jéggal say bàkkaar ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñu daal di wax man saama ramadana imanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambihi képp koo xam ni dafa woor weeru koor li tax mu woor ko mooy ngir ngëm yàlla waaye du ngir toppandoo déedéet ngir gëm yàlla xam ne ne lii kat ko teg ci ci kawam mu ne tamit imaanan waxtisaaban mu faggu ci li muy jëf xam ne ne yàlla da ko ci defaral tiyaaba suñu borom gufira lahu ma taqaddama min dambihi ñu xamante ni tamit weeru koor annahu adaafahu li nafsihi li nafsihi suñu borom subhanahu wa taala dafa jël weeru koor daal koy askanele boppam fa innahu lii wa ana ajzi bihi mboolem jëfu doomu aadama yàlla nee na danaa ko ko fay waaye nag koor moom na na ko xam ne na xam ne dëgg-dëgg koor yàlla nee na maa koy fayal sama bopp kon nag lii yàlla di fayal boppam loolu lu rëy la kon ñu xam ne ne nag fi ñuy jeexalee mooy weeru koor as-siyaamu yurisu saadata fi dunya wal axira koor dalay daadi donnuloo maanaam dalay daa day donnuloo doomu aadama amal doomu aadama bi texe àddina ak texe allaaxira kon képp koo xamante ni nag woor nga ba dog jot yonente bi sallallahu nee na euh, daawatun daawatu saim mustajaaba saa yu wooree ba dog jot lu su dogee ba nokki noppi lu mu ñaan suñu borom subhaanahu wa taala yàlla dog koy defaral kon mbokk yi ñoo ngi taxaw ak yéen fii ba ëllëg incha allah ñu continuer yenen pon yeneen ponk euh, wala yeneen euh, noqta yeneen point yoo xamante ni nii euh, war nañ ko eggali incha allah ñu yeggali leen ak yéen ci koor gi wax ci ngëneel yi waxaale leen tamit attee koor yiy defar koor yiy yàq koor yooyu yëpp danañ ci ñëw incha allahu rabbi kon ñu taxaw foofu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu